nii nunu ñu ngi leen di xool ndax nii nunu Babacar a ngi koy xool di xool yëkki keneen kaa ngi xool yëkki mi ku daan fi ngay yem arbitre yaa ngi génn di seen 19 wala 18h59 mbokk yi ñoo ngi am mbégte ñu ngi fii ci stade Demba Diop mbokk yi nan ko jàppe lamb am na ko maa ngi nuyu koo xamante ni boo demee moom doo nga nekk ci néegam te ma nga bitim réew xelam yëpp nekk Sénégal bu réew nga di nga dem cim réew moo xamante ne ni ka fa ne xalaatul dara lu dul nu muy def ba xool làmb ji làmb jaa ngi nii tiire nanu Balla Gaye mooy féete mooy jàkkaarloog penku Yékini jàkkaarloog soow arbitre yaa ngi wax ak ñoom li làmm nangu ak li làmb nanguwul bul dóor fii fii waroo fee dóor bul ngàdd bul xoj bul ngàdd bul xoj arbitre bi mi ngi wax ak ñoom Balla lii nga war a def ci règlement lii la la may Yékini lii nga war a def règlement lii la la may yaakaar naa ni bis bii ay at a ngi nii réew mi neex ni dina am ndeysaan ndeysaan Alaaji Njaay Alaaji Njaay ngi toog arbitre bi nee na ci problème de temps avertir na ci Balla Gaye Yékini ci problème de temps avertir nan la ci ñoom ñaar ñu ngi noonu Balla moo nekk ndijoor Yékini moo nekk càmmoñ 19 heures une minute stade Demba Diop stade bu mag bi mbokk yi 2STV di leen ko woon arbitre bi sifflé na Balla Gaye toj na nen bi yëkkati na loxo càmmoñ bi Yékini Yékini ngi taxaw di ko xool Yékini ngi taxaw di ko xool Balla Gaye ngi jéem a pour Yékini topp ko Yékini wàññi na léewtoo ba Yékini ak Balla Gaye Yékini ak Balla Gaye ndeysaan stade bi nee na selew waxoon naa leen ni Bécaye xale bi bu ñëwee du battre bëre bi il mu seet li muy def ndax tamit loolu dafa yomb ñoom ñaar ñu ngi ni selew il faut xool géwél yi rek ngay dégg 19 hmm. heures une minute et quelques fu mu nekk ñu ngi bëri xel daje nanu daje nanu daje nanu daje nanu lamb ja jeex na. lamb ja leemu jeex. ñoom ñaar bëggoon. Balla Gaye jàpp na Yékini jàpp Yékini Balla Gaye Balla ak Yékini Balla Gaye ak Yékini. Yékini neexul daan ci loolu. Yékini jàpp na ci ngem. Eh, li nit ñi bëggoon la def Balla Gaye jàpp ñu ngem. Yékini bëgg naa jàpp jàpp na. Yékini jàpp na. lan moo nar a am. mais nag Balla Gaye ci gis. waa ndengeñ bi. ndengeñ bi moo gêné Yékini. ba bëgg a liggéey Balla Gaye bañ na ma koy xañ ma ngay rasu. Balla Gaye Yékini. Balla Yékini ba tey Balla ko ndengeñ. Yékini dugal na bopp bi. Balla koy génne. Balla jàpp na Yékini. ci ngemb bi ba tey. Yékini benn loxoom jàppul fen bu roccee loxo bi day xeex. Yékini benn loxoom jàppul fen Yékini benn loxoom jàppul fen Balla Gaye Yékini jël na ko Balla Gaye Yékini suxu na ku yegg Yékini def na taat appui wala def na def na taat appui wala deful taat appui. attention nee na leen na nu bëre. Yékini doon na dooraat Balla dóor ci Yékini deful taat appui. ah dinañ ko delloo. dinañ ko delloowaat koy takk. Yékini koy takk Yékini koy takk Yékini neen Balla Gaye yaa Balla Gaye daan na Yékini Balla Gaye daan na Yékini Balla Gaye daan na Yékini jël bu leer nañ